السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بوك دغلو ريك اك خيل ا سيرين سامباي واخ يو داي واي يو غراو ييغا خا مولاي واخ سي سونو ريو غيس ني مبولم كو نيك سي سينيغال امنا لاج يو خا ني توباب يي لاج نالاكو لاج با دنج كو لوكاليزي لف تاخ كو جوك ليكو تاخونا جوك مودي نيك نغور ني في نيوان دي اي نيت نيول داجالي وون امو سي كين كو مومن ريو مي ما با جاخو نغا فلي ci benn ci jamono barabu waaloo ngi fii buur ba jële fa ngi fii teeñ ngi fii dammeel a ngi fii bursin kumba mbëndoo fii bursin bu mu mën a doon ma nga fee ñuy xeex di xëccoo ba El Hadj Umarul Fouti ñëw fi di xeex jëme ci lislaam ba ma ba jox ñëw fi di xeex jëme ci lislaam loolu lépp waa Sénégal dajewuñu ci benn loxo ci benn nguur am ci ci ñenn ci biir réew mi ñu dëkkoon ci réew mi ñu dem laxasu ci tubaab bi ànd ak ñoom tubaab bi di dem di dem ba not bi tubaab bi notee ba noppi ba indi jàmm ci réew mi bari na loolu lu mu waroon a def te def ko fii du place am pour waxtaane ko bari na loolu ay ñaaw-ñaaw téef yu ñu fi def te mën nañ koo waxtaane histoire la bind nañ ko waaye bi nga xamee ne am na ay rafet rafet yu ñu fi def rafet rafet yooyu la ñu doon laaj sëriñ si rafet rafet yi mooy lan benn bi tubaab bi ñëwagul kenn amul liberté bay sa tool lu dul ngay boroom kilifa koo xam ne da ngaa am nangami nit ñoo xam ne kenn ku ci ne day amee fetal bu ngeen demee ci tool yi dañuy sëb fetal yi sësale ko bu ñu bayee ba xaw koo sori ñëw fabaat ko jegale ko ndax léegi naar yi wala yeneen i ceddo jaari leen gannaaw lël leen def leen li ñuy wax miikar xeej la ñuy sëpp ci seen digg gannaaw jubal leen jaa jëm jaayi leen dañ daan tëdd ba reer ba noppi defe ne nelaw a def buur bi nga xam ne moo yilif foofu xam ne buur sàng mi ngi ñëw te day dal ci seen kaw te defaruwul ba jekk mu fab ndënd jox ko yéene kat mu tëgg ne ku fi fanaan di jaam ndax bi sàngam day ñëw bu feebar bu mel ne peste yi ñu daan wax bu amee xamuñu la fere xamuñu ka mise en quarantaine xamuñu garab yi leen di yi ñu koy faje xamuñu dara bu masaan ñëw day jeexal réew mi tàkk xiif bi bari ndax nit ñi mënuñoo bay buur yi di daanee di def lu nekk bii bu bi nga xam ne nguuru français l'autorité coloniale installé na ba indi yooyu yëpp mu dakk ba dara doxatul kenn dootu fi buur ku dul tubaab bi ak ñi mu fi samp muy euh, chef de canton yi nga xam ne moo leen samp mu bind nag di laaj sëriñ si na ngeen gisee lii ak li fi newoon lu ci gën foofu bi ñu ko laajee mboolem sëriñ bu fi nekkoon bu mu doon rek du kenn ku dul noonu wane nga ne sa xol sedd na ci nii lii am léegi wasi nag li fi dikoon amul kenn kenn ku mu doon rek gis nañ sa lettre ci loolu. li day firnde rek ne nga noot gi nga xam ne moom la ñu noot tey. ñu koy xeex ne dañoo bëgg a libérer Afrique plus particulièrement Sénégal ci noot gi ñu noot dinañ sonn lool ndaxte noot gi dafa dafa dafa weesu ñoom fuñ ko xalaatee te la war a xeex ngir noot gi jóge fi dañ koo jéggi ñoom di xeex la leen wax ji sëñ mbay wax li muy firndeel ci lu leer mooy ne ñii nga xam dañoo jàppoon ne dañoo gëmloo woon ne ñoom ñoo ñu dimbali ñoo ñu sauvé ñoom ñoo jaay ñoom ñoo ñu jaay la wax ju mel nii ku ko wax ci dëkk boo xam ne ca ñam ku jëmale mooy cay nit ñoo xam ne dañoo ñëw dañoo njëkk ñëw ba njëkkee ñëw lañ def mooy dañ laa wax ne yow dañ laa bind ngir nga nekk jaam ngir nga liggéeyal leen ñu jël ay nit ay gor def leen di jaam tàqale leen ak seen i njaboot tànn ñi gën a wér ñu ëpp doole tànn ñi nga xam ne ñoo gën a ñoo gën a amal njariñ atum réew ñu tànn leen ñu daal di jël yóbbu tàkkal leen ak seen i ndey seen i bàyyi seen i jarbaat yóbbu leen ci dëkk boo xam ne dootuñu dellu si def leen di jàmm toog ba mu neex leen mbir yi changé ñu soxla leen xam ne solaatuñu jàmm ñu daal di dellu gën a daal di ñëw sàcc la jël sa alal noot la dominer la tëddee say jigéen ne leen fii ngeen di jaar nii ngeen war a doxee ñëw ne la amoo culture amoo civilisation ay peuple sauvage génn rogn la ba nga jeexal tak bas conséquence bobu say sëtti sët di ci di ci dund moom la ñooñ la seigne sàmbay ñoo di wone ay mbir yu positif ci ñoom pour lan défendre xam na né suñu duggé ci biir rek seeni sëriñ feeñ pour lan ñu daal di finalement koku non mom lañ ko wara jappé moy ab sauveur moy ko xam dañoo dimbali limu wax ni dafa xas dafa saga dafa dafa tuutal foko mën ti wess foko mën ti xalaat rek der bu ñuul tuutal Afrique en fait sëñ Samba li muy wax ni mooy <clears throat> benn mbir bu tasaaroo nekkul ni ci moom la tasaaroo waaye da nga xam bal fu muy source bi lu tasaaroo loo xam dañ ko doon faral di wax. mooy la colonisation est un mal nécessaire en fait ñun lii ñu tubaab bi def yëpp dañ koo soxla woon. man nécessaire su ko waxee mooy ngay piqûre par exemple ngay piqûre da ngay am lu a saf dina dina saf dina metti mais loolu dafa dafa war parce que soo piqûre doo wér kon nécessité la kon tubaab bi ñëw bi ñëw Sénégal en fait en quelque sorte lu baax la ko quoi donte am na lu bon lu ñuy def tuuti wala am na bon lu ñuy def comme ni mu ko junjee ci mosuma dégg ngeen ay Sénégal ay jàmbaar am na ay jàmbaar ay ay ay gor ay résistant ay xeexkat ñu ci bari ay jaam lañ ñu ci bari ay collabo lañ te ñooñu nag nga xam ne ñoom ñoo ñu jaay. tey ñoom ñoo ñëw ñu ne ñun tey ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu sauvé moo tax Sénégal dëkk la boo xam ne dëkk bu exceptionnel la. kii li muy expliqué nii mooy lan <clears throat> li muy wax nii yëpp mooy lan su doon jox misaal nit da nga yor sa kër am sa njaboot am say soxna am say doom nit jugee fële. nga yor fa lu bari nit jóge fële moom amut la nga am mu ñëw dugg sa kër noot la ngir daal di roñ sa alal di tëddee say soxna di tëddee say doom waaye ngir mu daal di jël alal ja nekk daa soxla say doom daa soxla say soxna daa soxla yow foog nga liggéey mu daal di xam ne kon soo feebaree doo ko jariñ mu defaral la benn cabinet bu ndaw boo xam ne dacaa defay médicament pour ngay faju mu xam ne daa soxla nga naan ngir mën koo lam bëgg a sàcc ka dimbali ko mu yóbbu ko mu wutal la benn benn teen bu ndaw nga cay naan yàgg sa njaboot mu xam ne moom fii nii moom moo fi war a mooy kilifteef mu fekkoon la nga nekkoon ku xawoon na violent tuuti dóor sa soxna mu ne léegi soxna si dootoo ko dóor de man dama koo soxla ndax rek mooy kilifa gi soxna bu ko defee di dara mu fekkoon la nga yooxu say doom mu ne bu leen yooxooti oh. mu def loolu yëpp ba mënatu faa nekk mu daal di dem yow nga wëlbatee ni kiiree ko baax la woon sax de daal di fekkuloon moom de man du ma am teen kiiree ko baax la woon de su fekkuloon moom de man du ma am garab yi may naan nii kiiree jabaat ji naan ah la woon moom sama jikko dama doon dóor su fekkuloon moom kon sama jikko dafay kon ne di ma dóor doomi ko baax la woon su fekkuloon moom kon sunu bàyyi day kon ne du ñu yooxu lii la ñu sëñ Sam Mbaye di expliquer lii la ñuy taxaw ci tey jii Sénégal ay nit ñuul ak fi ñu jaar tubaab bi yëpp ñu taxaw di ñu ko wax te te ça passe et c'est pas la première fois nekkut moom kese moo koy wax waaye fii la mbiri toll sa à dire dañoo dem ba <coughs> tubaab bi en fait c'est un bienfaiteur moom la Alaaji Maalik doon wax moom la wax ca kaw <coughs> mooy ne fekk loon ñi fa nekkoon mooy africain bi amul loon possibilité ab dof la loolu mooy table en fait lii day dafay dafay justifier li tubaab bi tax mu ko nii mooy ñun mooy table rasa mooy amuñ ay dof la ñu woon mënuñu woon àtte suñu bopp mënuñu woon jóge ci xeex mënuñu woon juge ci xiiro ak ñaayoo. mënuñu woon a dëppoo suñu biir mënuñu woon a fàcc mënuñu woon mënuñu woon tubaab bi daal jóge fële moom comme un bienfaiteur ñu daal di indil loolu yëpp looloo tax am bay si dane tubaab bi c'est nos maîtres moo tax sëriñ sii nii la moindre des choses boo leen mën a qualifier mooy c'est des personnes c'était des personnes ñoo gën a xel ci li yàlla bind su fekkee loolu mooy li gën a tuuti nga leen di wax fekkee ne ñoom liñ leen wax ni xaqaqatal dañ gëm ñoom lu ñu gëmoon la ba gis ci tubaab bi lenn rek lu baax koo xam dafa ñëw di la sàcc si di ñëw di la tubaab bi su defalee da ngay dégg maa ngi fàttaliku ma ñu nekkee terminal ñu ne benn débat dafa ba marqué parce que ça m'a choqué professeur bi di di di mettre sur la sur la table ben wax ba nu ñu koy askanale Senghor mooy li ñuy wax la colonisation de Mandela mu mettre que sur la table comme ça. ma fatul man ak ben élève rek mi ngi santoon Diatta benn chrétien la man ak moom kese ñoo fa nekkoon di défendre le contraire yenen élève yi seulement seen niveau dafa dafa baawoon ci man je me disais mais c'est pas possible ce qu'il disait il wa c'est que loon tubaab bi duñu am terrain su fekkee loon tubaab bi duñu am hôpital su fekkee loon tubaab bi ma subhanallah man li nak mo tax en fait en réalité tubaab bi ñoo note en fait gëm nga kon en fait say mam say ñom mënu ñu won fekk mënu ñu inventer hôpital ñu won avancer lo nit mënu ñu rek liggéenti seen de xam histoire koy en fait ñom li avant juste bi wax mais bi l'Afrique avait développé des grands empires comme empire Ghana Mali empire ni fi fait ci avancement <laughs> fi ci organisation une égone ci ci prospérité ñu civilisation ñu bari batay donc li xew après c'était pas su fait ne désordre bu ben njaxas ko civilisation lolu civilisation lay dal civilisation comme nit la day apogée après c'est le déclin dina am période période bi la civilisation africaine commencé décliner mais le problème c'est pas un problème de il fallait que pour seen dëkk da nga ñu seen seen seen buur dañ koo rembee dañoo tubaab yi <laughs> tubaab yi ci jamono jooju muy wax noonu ay massacre yoo xam ne Afrique defaguñ ko leen def jamono yooyu pes da fay ray limu ray ci tubaab bi ray ko ci nit ñu ñi mais des personnes comme ça des cancres des personnes yo xam ñom ñoom lañ jël def leen di di ref ñom ñoy ñi nga xam ñoo wara développer l'Afrique des gars yo xam ils pensaient comme ça c'est comme ça qu'ils réfléchissaient léegi su fekkee ne ñun Afrique dañoo gis ne tubaab bi en fait c'était des bienfaiteurs en fait tubaab bi finalement ils ont ils n'ont pas fait que du mal tubaab bi en fait on avait besoin d'eux pour am ay médecin on avait besoin de pour am ay trains on avait besoin de pour am ay hôpital en fait loolu ñun on était incapable

muy ko dañoo collaboré woon ci ay classe bu fees dal su suma ju sax tuuti sama affaire théâtre la woon ma souvenir mu jug ñu nekk di werante ci loolu ma ne ne lii ngay wax ni da nga insulte la en fait da ñoo saaga parce que soo ñëwee na ma colonisation ay nit xeex ba ñu rey leen parce que ñi mu tudd ñi ñëpp mooy ay nit ay résistants dañoo xeex ba ñu rey leen c'est c'est ça mbay en fait li muy wax yëpp mooy ñoo ils ont insulté en fait ñoom tubaab leen gën en fait ñi mu tudd nii ay ñoom Foutu ay ñoom Souleymane Bal en fait ñoom ils ont rien compris parce que ñoom ils ont échoué là où tubaab bi a réussi te tubaab bee leen rey waaye dama ko doon wax noonu c'est un di mer di wax ak mom nan ko c'est li nga dañoo insulté parce que des gens yo xam dañoo résister ñaata nit ñoo dé pour libérer Afrique colonisation Afrique nga ma collaboration la woon. zone classe amoon na anti amoon na gabonais amoon tout ça après était très content mais <laughs> problème bi se pose au moins en fait je me rends compte que tubaab boobu l'homme mi wax raciste ko ma jàppee raciste li muy wax en fait mom la ñu yàgg wax sax man mom la yàgg a jàngal en fait li muy wax mom la sama ñi ma dëkkal ba tay gi di di wax après ñooñu ils sont adulés ils sont mis en avant parce que ni ñom ñoo jaay Sénégal ñoo jaay Afrique c'est ça la réalité fait ñoo Afrique Afrique livrer moo ñu moo ñu ràññante imaginer rek trans nga toog fii tey jii nit taxaw wala sax di jéem a wax rek loo xam ne dafay jéem a dafay dafay jéem a defaraat tuuti image peut-être wala dafay wax benn mbir boo xam ne dafay dafay dafay dëgëralaat li nga xam ne moom mooy holocauste wala boog l'occupation allemande imaginer rek moo tax si tëtan pas des fois des fois dama doon yéeme ma ne naka la benn kenn ci président yi mos naa toog ñuy wax ci ñu wax ci li nga xam ne mooy sénégalais mu wax bu ma bu ma bu ma jaaxal da sénégalais sénégalais en fait ils étaient favorisés dañ ko par rapport aux autres parce que dañ leen doon jox ay dessert fierté mais ça n'a choqué personne li li mu li li mu làmbool ci ay saaga ci ak ak suufee ak toroxlu ak ak ak ak ñàkk xam sa bopp kenn xamul nu mu toll mu fàttali benn wax mooy ancien président Abdou Diouf tamit mos naa toog boobu gënoon naa doon xale mais daf ma choqué woon tamit mu taxaw mu ne gars yi dañuy manifester pour gars yi TV5 loo ko defoon dañ doon manifester pour ñu changer pont Faidherbe tuddee ko Omar Fouti xaw ma kan nee na Sénégalais ñoo taxaw jug manifester pour man déjà c'est un pour man pour man waxuloon dëgg mais peut-être la raison les Sénégalais ñoo dugg ne ko bañ ne ko non non de pont bii nii mooy bi soo day continuer tudd Faidherbe <laughs> pont bi fa mu continuer tudd Faidherbe mooy ki nga xam ne moom moo moom moom moo ñëw noot la en kooku moo la gënal ki nga xam ne moom taxaw na résister ko en fait nga xam ne kon kooku moom il est Sénégal mooy dëkk boo xam ne kenn xamul dëkku lan la te ñoo gën a rëy la meñ gën mën a tagg seen bopp ci biir yu bari Sénégal jom gi fa nekk ban jom ban ban ban ban ban jàmbaar ban ci dëkk boo xam ne jom bëgg sa bopp patriotisme da nga ñu ko xamuñu ko sax mbir yi day jàll ça normal kenn du ci kenn du ci wax dara soo leen ko indilee sax ñu def la noonu. ku taxaw naan le les tubaab sont nos maîtres ay ñoo xam ne dañoo taxaw tubaab bi ñoo leen décorer ñoo leen légion d'honneur pour service rendu à la nation ñoo la ñuy jël dina addule naan suñu mag ñu baax ñi wax nañ fa dellu te pare suñu bëggee nag le contraire ñu bëgg ñoo bëgg ñoo fat France dégagé ak on a France ak nangam suñu demee jibbal ki nga xam ne ñoom ñoo ñoom li ñuy porter mooy ne France on avait besoin de lui li ñuy porter mooy ne noot gi ñuy noot waxuma sax la néocolonisation <laughs> colonisation dégg la nga xam ne kenn du ci werante ñoom ñooy ñoom ñooy <laughs> tey ji ñooñu la ñu jël ne leen dañ leen di wekk ñoo xam da leen waroon yóbbu caaro yi rangale leen jël ay xeer di lappi di woon jël ay crevette lappi di leen bañ tëdd ci suuf ñoo ñoo fekk ñoom ñoo ñëw seen i doom seen i sët seen i ñoo ñoo ñu war a yoon bi ñu jaar ñoom la ñu war a roy pour jëm kanam voilà moo tax c'est c'est lu c'est yaa ngi certaine cohérence moo ñuy gën di di gën di moo tax ñuy gën di gën di gën di dee c'est la cohérence c'est ça c'est-à-dire ni l'île du en fait nous du jungle, une en tant que nit en tant que en tant que tout en fait on est incapable de se développer on a besoin de l'Occident en fait euh, c'est des bienfaiteurs nous les ñu li defal mun ñu ko fay kon c'est cohérent quand même so tu courbes la tête et euh, tu embrasses <laughs> la main de l'Occident